ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci euh, teewlu bi seen émission face to face amaat euh, mbégte dellusiwaat tey nag euh, ñuy jàkkaarloo ak honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di honorable député bokk ci parti bi di bokk gis-gis bu président Pape Diop. honorable nag euh, ñu lay nuyu di la jaajëfal ci ni nga nangoo répondre positivement suñu invitation ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi lay teewlu bala ñoo dugg nag euh, ci biir xol émission bi. Euh, jërëjëf waat ndax état Sénégal amul ressource boo xam doy na pour mën a jëfandikoo bis sa boobu noonu. Mm-hmm. bis 2021 bi nga xamante ñu ngi ko wat si 2020 muy mu war doxal li nga xam moom lañ si man a wax rek mooy dépense yi dafa ëpp recette yi. te réew mu normal jàpp naa ne bépp lépp loo xam ne mi ngi koy natt war nay ménganu ko ak am amam ndax tey boo jëlee li nga xamante ne mooy recette bi mi ngi nekk trois mille six cent soixante neuf milliards virgule neuf trois mille euh, trois mille deux cent soixante euh, trois mille deux cent vingt six milliards moom mooy recette bi mooy li nga xam ne moom lañ jàpp ni war nañ ko am muy diggante douane impôt ak ñi nga xam moom la ñuy war a fayu li nga xam mooy dépense mi nga nekk 3 969 milliards virgule 9 am na déficit 740 milliards virgule 9 déficit boobu nag lan la xalaat pour am ko mooy dañuy dem pour lebi ko mu yokkaat ci li nga xamante ni moom la Sénégalais yi leboon depuis 2012 ba léegi nga xamante ni bor yooyu war nañ koo fay ci euh, temps boo xam ne mën na 53 cent moom si la war a fay bor yi Macky Sall leb ñu dolli si loolu noonu nga xam ni fi ñu toll ni may wax a yow ñu ngi fay 327 milliards par mois ci ci li nga xam mooy det yi nga xamante ni bis bi yàlla sàkk Sénégal danañ génn 1 milliard franc fa fayee ko bor ci réew mu ndóol bu toll nii Sénégal kon bis bi jàll na wote nañu ko ñi nga xam ñooy majorité bi mais ñu ñi nga xamante ñooy opposition bi représente peuple li ñu wax ni fa la ñuy dugal xaalis bi doyuñu moo tax que wote ko te loolu ñu ngi ko teg ci bëgg bëgg askan wi ndax ñun bal ñoo wote Birse war nañoo xam li nga xam dañoo digge woon te leen digge woon defuñu ko ñu dem càmbar loolu xam ne ñoom defuñu ko ñu wax ñu lan moo tax defuñu ko mais doléance yi ñu doon def à 2019 ci plénière yi 2020 même doléance la député yi doon def mooy monsieur le ministre suñu dëkk amul ay salle de classe amul ay table bam monsieur le ministre suñu dëkk amul ambulance amul ay poste santé amul centre de santé monsieur le ministre suñu dëkk xale yi liggéeyuñu ndaw ñi dañuy si gaal yi yaakaar naa même doléance boobu noonu moom lañuy ñuy te contraire yaakaar naa bu fekkente ni tey assemblée sax dafa am loo xam moom la war a dox muy benn dayo bi war na bis bi yàlla sàkk muy gën a ubbi gën a bàyyi xelam ci population ñoo ko fal mais du laa ngeen lépp loo xam ne Macky Sall indi na ko rek dañ ko war a wat bés bi wote nañ ko waaye amuñ ci benn yaakaar boo xamante ni man na saafara li nga xam mooy soxlaay askan bi mhm. honorable loolu am na euh, solo ndaxte euh, marathon budgétaire moom Sénégal euh, yàgg na ko assister ci assemblée nationale waaye dëggantaan li nga wax rek la néew na ñu si gis en tout cas yi di xam exactement lañ fa voté yëpp mhm. koppar yu bari yooyu milliards yooyu fan lay dugg dëggantaan waaye leneen li nga xam ne nag sénégalais yi moom lañu gën a jàpp ci marathon budgétaire mooy yéen député yi ni ngeen mayee seen bopp ci xuloo ci xeex yow nag bu ren bi nag moom dafa mel ne yaa ba euh, dama bëgg benn bennal rek rapidement euh, euh, xuloo yi fa nekkee woon ki nga njëkk xaw ma yaa ko xaw ma moo la député Aline Badara Diouf ba APR yéen ñaar ngeen dóorante dafa mel ne ay ay ay Balla Gaye ak Modou loolu honorable naka la demee est-ce rafet na ci kilifa gi nga doyal mbàkke mbàkke mag bi nga dool am ay taalibe Sénégal euh, découvrir la avec euh, plaisir ñu lay gis euh, nga yëkkati ay kàddu di wane ne bu weesoo mbàkke mbàkke mi mun nga tamit bëre mën nga mën nga box xam nga ay surtout ñun bu ñu nekkee ay mbàkke mbàkke mm. teewul ay citoyen lañu mm-hmm. aw askan ñu yaakaar ñu ensemble ku ne xam na ni muy doxe mooy bu fekkee dafa am benn mesure boo xam lu neex Macky Sall neex na leen ñu nekk ay député Macky Sall am maanaam benn euh, dip député yoo xam ni dañoo nekk minorité nekk opposition nga xam ne askan lu ñuy waxal askan woowu nag ren ñu tànn ma man ma nekk le meilleur député ci plénière bi passé ginnaaw bu ma jaajëfalee population bi ak journalistes yi nga xam ñoo ma tànn man la xamante ni moom la ñuy bañ ku ko wax di ko nëbb askan wi ngir maanaam ñu xam ko ngir gën leen a bañ foofu laay tàmbale samay wax ndax du ma wax lenn loo xamante ni du dëgg rus naa ko ndax bande bi dafay des te sëpp Sëñ Tuubaa la ëllëg tamit dafa am ñeneen ñuy ñëw pour di xool loolu. mais xeex yi nag léegi loolu laa lay wax fi nga xam fi leen tàmbalee ah. dama def ni am na sa benn collègue ma ko mas a wax fii ma ne ko xeex ba dee moo gën moo gën daw ba dee mm-hmm. xeex si dëgg ba am li nga xam mooy satisfaction bëgg-bëgg askan wi yëpp moo gën maanaam ñu dàq la ba nga génn askan wi tumuraanke ensemble heure boo gisee ñu wane ko rek problème am fa jógewul si man bu njëkk bi sax da nga juum amul woon doon nekkul woon kooku ngay wax noonu beneen député la woon euh, ko ñuy wax euh, je crois que euh, xaw ma daal tur bi nu mu tuddati mais député APR la woon. te da xamoo tur bi day day day na bokk assemblée. waaw mais bari na ñoo xaw ma leen assemblée yi man xaw ma leen am ñu bari ñoo xaw ma leen. mais loolu mu nekkee honorable day am ne téeméeri député juróom-benn fukk ñëpp mënoo jaar seen tur wala nga jaar seen dant mais député boobu noonu dama doon wax ci affaire terrain yi suuf yi. xam naa dana si dellusiwaat. kooku bi may wax après moom mu jël kàddu ndax dafay am ñoo xamante ne dañu ma ko mooy dañ ne bu Cheikh Abdou Bara Dolly dee wax na ngeen na ngeen di jéem a dagg wax ji ko sabal suuf wala bu bindoo yéen juróomi député da leen di tànn ngir ko ñoom man rek la ñuy tontu loolu yàlla moo ko def man assemblée nationale yàlla moo dogal ni man maa koy contrôler bu ma neexee mu am débat. bu ma neexee du am débat man maay star ensemble loolu yàlla moo ko def ñoom xam nañu ko sax même président Macky Sall wax na leen ko ah, kooku Pape waaw maa ngi décevoir naa si tur mooy Pape Seydou Dianko la kooku député boobu noonu ñu amaloon ñu ko am problème mm. moom mm. li mu xamante moom laa génn woon wax te askan wi wax loo woon ma ko mais bu ñu paree dama fekk si biti mu ma sëriñ bi maa ngi jéggulu ndax li ma wax nii xaw ma woon nu mu demee daane ñu si bari ñu mel nii dañuy yàq président la ndax yow ni nga toll ci réew lu mel nii warul am te réglé wuñu ko man na ko du question sax man mais population bi nga xamante ni lu ma dal dal na leen te mënuñu ko wax te ñun ensemble lañ am sañ-sañu wax wi loolu ma ko waral kenn ki nga topp mooy ki ngay wax muy député parcelle boobu noonu kooku bi nga xamante ne ministre bi euh, muy Zahra Iyane Thiam moo ñëwoon bi mu ñëwee mu wax maanaam euh, directrice bi nga xam ne moo yore euh, fonds bi nga xam ne mooy fonds islamique Yafatou mu ne ko doo dugg si hémicycle bi mm-hmm. aaye ko hémicycle kon ñun ay député lan xamuñu lu ñu jotee suñ yoon ne aussi mais assemblée nationale bu fekkente ni moom bitseem kii fond bi mu yore Macky Sall dénk moo war a def ay financement mhm. fond bi moo ëpp doole foofu noo leen li nga xam mooy bitseem mhm. te ñun li koy laaj yépp ci fond boobu lañu koy laaj mënu ko yow doo dugg ci biir euh, salle bi bi ma jëlee kàddu ma ne ko bu ngeen di politique na ngeen ko yàble seen problème politique mais assemblée bu leen fi ñëw di politique daa ñuy wax ne man kilifa diina la baykat la kooku teg si ni ma neel tamit client <laughs> ma ko maag sa ndey ak sa baay loolu. <laughs> mais loolu euh, euh, euh, na ma ndax man na ay jii imaginer ko wax sama doom ne ko sa baay triant la rek a yom a wax hmm. jii samay doom taxawoon tey jii ñu ko moo tax bi nee ma yow triant nga ma ne ko maag sa ndey ak sa baay ma génn si biti mu dab ma xam nga defoon na ni moom ni mu dumaa Omar Sarr man na maa dumaa noonu hmm. Omar Sarr ban la duma Omar Sarr benn ah. moom moo ko duma woon jamono yooyu. kooku ah. dafa jubati de. waaye bi mu ñëwee ma xam ne dong dara laa. boobu la fa xeex gaja am wala coow. mais noo ko def honorable duma ko laa def. yaa ko duma yow. xam nga ne maa ko duma de ma nga laaj. <laughs> léegi honorable honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yow moom benn numéro gi ci biir assemblée mu mel na yow kenn mësu ko gis euh, sànq yaa ngi junj euh, Mamboy Diaw man nag sa yëf ak jaawoo Eh, eh, daf ma eh, dafa dafa xaw a jaaxal tuuti ndaxte ñëw nga ci assemblée bi ñuy wax nga jékki-jékki tarxiis wax fa ay waxu suuf ne Mame jaawoo Diao directeur domaine yi dafay jël ay terrain di ko jox ay chanteur ak yenn xeetu jigéen hmm, xam nga loolu tam tam aussi honneur dafa rëy léegi ba nga waxee loola ci ginnaaw ga su ma juumal ñu génn ay benn ojo boo xam ne yaa ko yónnee euh, kii euh, Mame Boye Diao euh, nga fay wax ay waxu ay ay ay ay terrain rek ñoom seen mais man li ma la bëgg laaj ndax dégg naa boobu léegi tontu nga ci dégg naa ko li ma la bëgg a laaj mooy est-ce que yow da doon jéem a chanteloo Mame Boye Diao chantage bi échoué wala li ma leneen nga xam dégg naa ko tamit mooy dafa mel ne daaw Daouda Diallo Euh, euh, ministre de l'économie mi nga xam ne euh, mooy ministre Mame Boye Diao te ñoom ñaar du ñu jaaroo taal moo nekk si ginnaaw xëy na am lu mu la jox moo xam xaalis la da xam naa yow kenn la jox ay millions ay milliards lañ lay jox ñàkk lu mu am nu mu fu mu jaar ak yow ba ne la songal ma booy bi nga ñëw assemblée nag war ko naka fa bàcc. <laughs> xam nga loolu bu ma ko déggee daf may reeloo. ndax lan amal ah, amul ko xaj sama ginnaaw. Abdoulaye Daouda Diallo xaju ma ne amul ko xaj sama même Macky Sall xaju sama ginnaaw bu ma soxla woon milliard du ma jaar ci Abdoulaye Daouda kon bi ma ko Macky Sall proposé ma d' accord man askan wi ma ñor hmm. dafa am combat boo xam c'est un combat principe man dañ ma tooñ tooñ askan wi hmm, luñ la tooñee bu njëkk bi mooy à 2017 dama am sama ñetti terrain maris yoo xamante ni benn terrain bi sax Mame Boye Diao mi à 2017 le 25 5 mois 2017. moom moo signé woon acte bi nga xamante nii mooy acte numéro 104. Mm-hmm. moom moo ko signé woon ko ci suuf. jamono boobu noonu. Mm-hmm. bi nga xamante ni tey jii élection législative la woon. Mm-hmm. bi ñu ko nangoo ci kaw goo xamante tegul ci yoon. waaw man ma wër. avocat muy metti El Hadj Diouf laa jëloon sama avocat bëgg a def point de presse café de kilifa yi woo ma ne ma sëriñ bi jarul ko comme yàlla dogal na say terrain la woon dañ la yóbbu contentieux contentieux boo ko déggee mooy koo xam ne dafa am problème yu terrain am bail am droit réel ñu notifié ko par CCOD keneen ñëw maanaam ni moom moom ñu dem si biir dañ leen di àtte kii ñu jox ko li kii ñu jox ko li te ñun ñoo war si biir si assemblée nationale ministre yoo xam ne contentieux bu amee ci lay état di jël pour fay ñooñu man ñu ne ma dañ à deux mil ci euh, mois de juin bi deux mille vingt. Mm-hmm. Mame Boye Diao signal ma ñetti notification ñaar yi sama tur la Cheikh Abdou Mbacke. Mm-hmm. benn bi sama turu jabar la Bintu Mbacke. bi ma ko signal am na ku nekk TFM koo xamante ni jox nañ ko ñetti notification même euh, man. pardon nekk fan. TFM bii ngay liggéeyee. kon ku nekk TFM bii. jox nañ ko ñetti notification yoo xamante ni man ak moom lañ defarandoo. Euh, man nag. déedéet déedéet honorable waaw dama lay waaw déggal ba mu wax bare nga doog maa laaj ñooñu. Ah. man nag comme man sénégalais la waaw kooku gënuma nekk sénégalais ñu delloowaat kooku ay kéetam man ñu ne ma duñ la delloo si kenn ndax li tax mooy dangaa sant Mbàkke ñaareel bi dangay ngay xas Macky Sall kooku wax ko ba ma dégg ko te kooku si boppam muy Mame Boye jaaw sama xarit la moom dem naa ba si xalif général des mourides yëkkati addiya jox ko ni ko maam jaaw moo la ko jox nee nga ñaanal ko te def ko ah, seq nañ lu baree bari mais dama am yoo xam ne insiste la bi loolu amee président la république ay dogal nga xam mooy chef chef de euh, euh, chef suprême des armées gardien de la constitution nit Cité Tobacco gi nga xam dañoo daane woon seen kër à 2017 boobu Mamour Diallo moo fa nekkoon mu recevoir leen palais ne leen yéen ñëpp nañ leen ñu dox leen ay bail 2017 ba 2020. ñi dëkkoon si Tobacco ñi fa jëndoon kër ba fi may wax i terrain. ñooñu ñëw seet si ma ak ak li nga xam mooy seen ma tegal fi askan wi. ministre des finances bi nga xamante ne fa leen war a waxee loolu. booba directeur a ñëw ñëwul. moom ñëwul am naa sañ-sañu wax ñi nga xamante ni dañoo amoon ay terrain fii ci bi te canal bi jaar fi mu nekk 169 terrain. ñooñu tamit ba fi may wax a yow jot ñu seen terrain. président de la république joxe ni nan jox maanaam aéroport dagg fay terrain mu nekk 500 terrain ñu dagg fii si hangar bi 700 terrain mu nekk 1200 terrain 1200 terrain ñu ne ñun lañ koy fayee. Mhm. ma gis ñuy fay ay nit muy ay journaliste ju gis ñu jox ay waykat ak ay fecckat ma gis ñuy jox ay ñeneen man ma moom sama yëf ñu ne ma duñ la jox ndax li tax da ngay xas Macky Sall dama bokk ci réew mi wala man dama du sénégalais. Mhm. loolu ba amee boole ko li nga xam moo am am naa sañ-sañu wax ko si Abdoulaye Dia mais gis nga bi nga xamante ne ñu ngi jébboole rapport bi nga xam moo yor mbirum indonation yi. ma ànd ak président Moustapha Niass président Macky Sall si boppam bi ñu noppee dafa jàpp ci sama loxo jàpp ci loxo lay Daoud Diallo ni ko problème mu terrain Cheikh Abdou na nga ko réglé ni mu gën a gaawee ndax Cheikh Abdou musuma ko dégg mu wax lu du dëgg tey tey maanaam soxlawul leen loo xam ne muumu ko ndax musuma ñaan te du ma ñaan kenn mhm. yaakaaruma leen ñoom ñii ñëpp maanaam maa leen ëppale ndax li ma jox la sëñ Touba la te ñoom bu leen follee ëllëg si nga gis la ñuy ñuy ñu yelwaan Abdoulaye Daouda Diallo moomu bu fekkoonte ni tey mi ngi sama ginnaaw wala mi ngi si ka ba ko président joxee ndigal boo xam ne boobu tàmbaligoon sax plénière euh, euh, euh, ci plénière ñu ngi woon si commission ba léegi ni fa may wax defu ko Abdoulaye Daouda Diallo ba ma ko xamee ba léegi benn laa ma sa dem bureau te mbirum liggéey moom fa yóbbu woon Abdoulaye Daouda Diallo bokk na ci ministre Abdoulaye Wade yoo xam ne ñoo ñu gën a teg lu ñu naqari ci suñu àdduna man ak sama frère ak sëñ Assane ndax bi mu nekk ministre l'Intérieur moo ñu jàppale woon ci kaso bi kon jàpp naa nekk sama ginnaaw am yenn ñi nga xamante ni gëmuñu seen bopp la. Mm. nga xamante ne dañu doon woo Ablaye Daouda jàlloo ngir maanaam mu jàppale leen moom mu ne ko séqumaay lu ma leen jàppale ñu soxla xëy na Mame Boye Diao mu jox leen dara ngir duñu dal sama kaw mais man jàpp naa ni gor koo xamante ni séquloo moom dara wurloo wax loo xam ne du dëgg. Ablaye Daouda Diallo xajul ci sama ginnaaw Ablaye Daouda Diallo musuma toog ak moom wax ci mbir mi lu li ko président de la République wax sama kanam te bi ko président joxee ndigal ba fi may wax yow defu ko. man nag man nag sama alal maa moom maa jënd sama terrain état war maa jox joxuñu ma 2017 la woon ba léegi bu sottee baax na bu sottiwul nguuru Macky Sall dana fi jógee keneen ki fi ñëw da nga ma jox sama mais lan laa koy santaase parce que xam nga boo ñëwee ba euh, honorable euh, boo ñëwee ba ci euh, assemblée nationale nga war wax yeneen wax yu solo mais boo ñëwee jékki-jékki rek pëtëxal daay dugg waa ji waxal waxal ko fa lu rëy ay ay chanteur ak. waaw mais xam nga xam nga xam nga man wax ji mën naa ne sax du ma si dellusiwaat la ma wax assemblée ndax plénière la woon lu ma wax plénière dëgg la bu leen ñoree nan teg commission d'enquête parlementaire du waxantu. Ah, dama ni lu ma wax dëgg la. du ma waxantu. bi loolu jàllee président de la république jël na ay décision décision yi mu jël bokk na si samay terrain nan ma ko delloo. Mm-hmm. am na ay kilifa yoo xam ne bokkuñu ak maam booy jaawoo parti bokkuñu ak man parti ku si mel ni Massaly dox na si tànki jàmm. kon gisante ngeen yéen ñaar. kan euh, gisante wul mais dama ni Massaly mi ngi si dox na si tànku jàmm. Mm-hmm. li nga xamante ne moom laa soxla mooy sinistre yi nekkoon surtout Tobaco jot seen i terrain ñi nga mooy cent soixante neuf terrain yi nga xam moom la tojoon maa nga xam moom la nangu woon ñu jot seen i terrain tànk jàmm lan la yéen ñaar toog yàq yàq euh, non xam nga tànk jàmm mooy moom passé man li ma am man li ma am moom wax na li tax mënuma ko jox ah. moom nee na bu ko Ablaye Daoud Diallo woo woon téléphone ni ko joxal Cheikh Abdoulaye terrain mu jox ko ko wax na ko waa ji hmm. léegi après kon kon kan kan moo si des ku di Ablaye Daoud mais loolu concerne xam nga loolu mel ni man affaire terrain dama ñor man am naa fu ma dëkk Dakar. Hmm. mais lu ma am nga xam sama àll bopp maa ko moom musuma ñaan état soxlaa lu ma état topp ma si ginnaaw kenn faalu ma leen tey bu ma toppoon seen ginnaaw yaakaar naa lu ma soxla dinaa ko am mais am am ngërëmul askan wi. ak tànn gën ma tànn yóbbu ma assemblée naal moo ma gënal ma ñàkk ay milliards fuufu ndoole ndax li ma ñàkk ci milliards. ñàkk sama ci li ma doon liggéey ñàkk samay kër yaakaar naa ni maanaam topp bëgg bëgg askan wi moo ma ko yóbbee ndax fekkonte ni tey jii nekkuma di défendre askan wi mm. di génn ay mbóot assemblée national mel na yeneen député yi lu mu bëgg si état dinaa ko am mais nag ànd ak askan moo ma gën a ànd ak état wala wala am dara booba gën a wóor mais mais sànq da nga da wax euh, benn affaire bu garaaw boo xam ne euh, quand même honorable ah il faut nga leeral ko ndaxte TFM nga nekk TFM moo dalal waaw boo waxee lu rëy lool ne Euh, euh, euh, dafa am kenn ku nekk fii TFM. waaw koo xam jox na ko ñetti tere ñetti terrain mais du ma tudd trop. ah loolu du tudd trop loo ci ragal non bu non du ma ragal. mais bu man moom non dama ni dama comme du yow. Hmm. du ki ngay wax léegi kii mu doon. góor wala jigéen la man daal dama ni la. waaw góor ak moom non non mais mais mais honorable non non non non honorable honorable man yow du ma taxaw di tudd tur mais honorable mais yow loo ci ragal honorable ñoo tase bureau Mamour Diawo Mamboy Diawo jox nañu ko jox nañu koy terrain man samay terrain ngi nii ñett terrain yii maa ko moom numéro yi nekk hmm. terrain yi hmm. moom tamit ay numéro am ñoo sosoo même numéro moom moom joxaat nañu ko yëfu ñu bees sama joxuñu ma waaw góor la góor la waaw ah, waaw góor la waaw bu mu sant jërul ma koy wax jàll si leneen waaw léegi loolu si ragal honorable du ma ko wax jàll si leneen waaw ko xanaa dafa am fu ngeen li ngeen seqee dama ni ji sequma la invité dama ni dama ni dama ni dama ni en tout cas daal la ma wax hmm. firnde yaa ngi nii. parce que bu subaa tamit non parce que xamul tax fii nga ko waxee. waaw man TFM laa ne. kon kooku euh, sama collègue la. waaw après kon boo toogee fi wax. léegi da léegi da ngay gëstu nag la mais jox man wax naa li nga xamante ne moom la sant laaj nga ma ma ne la góor la. journaliste la wala journaliste la wala man daal loolu du ma si waxaat dara en tout cas jox nañ ko ay fay nañ ko. Nuur sant maa sant Nuur man daal xaw ma si dara man daal loolu leeru ma santul Nuur xaw ma si dara kon xanaa Ndola sant moo tax. xaw ma si dara man daal li man daal jox nañ ko ñett terrain fay nañ ko. te man fay nañ ko waaw léegi nag man li ma la bëgg la ñu ne mooy bu subaa buñ kenn woo ba émission bi jaalee naan ma kan la. waaw bu leen bu leen yow bu leen yow xam nga ko da wax naa la ko da nga ko ñi wut a wax yow wax naa la trop. man maa la ko war a waxee. <laughs> wax ko. yaa ko war a wax <laughs> waaye wax naa la ko yow. yow yaa ko war a wax loo ci ragal. du ma ko ragal xam nga laaj nga ma ko si biti ma wax lu turam. <laughs> pourquoi yow mënoo ko wax si presse bi. mais pourquoi man man maa la ko wax. waaye comme mënoo koo wax man man du ma taxaw. Sénégal mais yow lan nga ragal pour wax ko man loolu sama problème la man du ma taxaw Sénégal yëpp di ma gis ah. ak fi ma toll man ma naan diw la wala diw la pourtant keroog ba ngay song euh, kii waa ji jaw ragaloo bokkul ndax foofu assemblée la fii euh, fii euh, télé privé la <laughs> kon da ngay bañ a porte plainte déedéet man kenn ma ak moom lañ joxandoo woon hmm. moom fay nañ koy teereem bàyyi nañ man ndax man opposition laa damay xas Macky Sall mbàkk laa san moo tax ñu bañ ah, maa jox man daal xawma xëy Macky Sall man de xaw ma li nga wax leer na honorable waaw ah, ah, man na doo doo sewee sa bopp bu bëgg maa dugal oh. dama ko dong léegi euh, kon bu defee ñu génn foofu nànk mais mais mais mais affaire terrain yi actuellement ñi ngi dégg ne euh, président Macky Sall tàmm na nag yéen député yi ut nu mu leen naxee noonu nu mu leen euh, bëëree di leen ay ay terrain ak ay ay ay ay ay ay ay oto yow sa bos ñëw na man soxlu oto Macky Sall man avant Macky Sall am naa oto avant mag Sall am naa kër. mais yooyu mooy la neexalaate neexal foofu nga xamante ni li ma wax loolu dëgg la ndax xam nga dafay def chaque jour buy bëgg indi pour loi assemblée loi boo xamante ni wér na ko ni député yi mën nañ see maanaam ñaxtu. mu neexal leen ndax bi muy indi pour loi bi nga xamante ni mooy bi muy des dindi poste premier ministre recevoir na député yi. Mm-hmm. may leen ku nekk un million ak billet Makka. Mm-hmm. moo tax ba ñëwee nga gis maanaam nañ ko doon doxalee. ak loi parrainage bi. tey mi ngi indi benn loi boo xamante ni dafay censé dindi. li nga xamante ne mooy loi habilitation bi supprimer article 69 bi nga xam moo nekk ci constitution bi. Mm-hmm. indi le nouveau article muy article 24. muy lan boobu loolu mooy li nga xamante ni tey président Macky Sall bu fekkee indi na loi bi assemblée te ñun jot nañ ci loi bi loi baa ngi léegi man assemblée nationale déetul am sañ-sañu président di ko laaj ndigal mu prononcé euh, état de essence ak ak ak état de siège. Mm-hmm. bu njëkk constitution dafay wax ni fukki fan ak ñaar la président de la république. Mhm. am sañ-sañu décréter état d'urgence. Mhm. bu fukki fan yooyu ñaar dafa war a ñëw assemblée nationale assemblée yokkal ko ko un mois. Mhm. léegi président de la république nag bu amee fukki fan ak ñaar ba noppi am na sañ-sañu bu jàllee moom mu yokkal ko boppam renouvelable un mois. un mois yooyu nag daf ko yokk si bi nga xamante ne mooy léegi gouverneur yi daan am sañ-sañ boobu noonu ak préfet yi bu nekk tamit ña fa nekk am daan am sañ def ko fa. moo lay wan ni am na loo xam ne ñu ngi ko bëgg a def mooy gis nga ñoom xam nañ ni defuñu 2021 mooy année bi gën a metti bi askan wi gën a sonn bi askan wi gën a génn di ñaxtu ndax situation économique réew mi ndax boo jëlee tey fukki millions yi personnes ak ñeent ñooy dund ci réew mi benn million moo ci fayu salaire fukki million ñett yépp ci informel la ñuy dund mm-hmm. imaginez ak mbas mi nii kenn tukkeetul kenn demut ñëwatut situation bi bloqué ñu war a génn ci mbedd yi di ñaxtu ñu indi loi bi su boobaa loi bi nu muy diire pour ñoom ñooñu moo tax ñu ko indi mm-hmm. bu nee ba nga xam ne ngi war a déposé ay candidat élection war ñëw mu ne dafay bokk fa force bu ko neexee génn loi bi ndax loi bi bokk na si li nga xamante ni maanaam dafay naxasal kaaraangu réew mi mm-hmm. au lieu que mu yem ci problème mu centre mm-hmm. kon yaakaar ne loolu moo tax mu wax député yi ni leen da leen di may ay terrain terrain yi génn na may na leen ko mais man la ma proposé woon mhm. mooy mayoon ko ñi nga xamante ne ñooy liggéey sax ensemble national te amuñu fun dëkk moo gën foofu ndooleen personnel bi moo gën ñu koy may député yi nga xamante ni liggéeyul askan lu tax ñu leen koy may te fa leen ko may sax foofu jërul may ko kenn ak naan di fay fay la goo xamante ni avenir am daal ay fukki at ci kanam la ah na leen kon da leen a ndax. te man la ma si gën a jaaxal mooy yeneen député yi boo xoolee treizième législature ak quatorzième bi la boole. maanaam douzième ak treizième bi la boole. waaw bi daf leen a mayoon ay terrain. Mhm. ba ñoom ñu toll notification. Mhm. mais ñoom ñu jaay ko ay fukki millions. tey jii 400 mètres la woon bu njëkk ñoom ñu jaay ko tey jii ñooñu député yooyu nga xamante ne dañoo jaayoon ñu ngi leen di yóbbu si yoon moo tax président Macky Sall am na yéene di defar waaye ñi mu ko sant amuñu yéene yéene wuñ dara député yi lu dul jafe nan ni jël terrain yi fii aéroport di ko jaay ak di ko may ñu leen neex moo gën may ko député yi te député yi soxla nañ ko te set waaye am non non loolu xam nga euh, loi d'habilitation bi euh, bu weesoo euh, ñëpp jàpp ne li fi instauré mooy genre dictature ak benn maatay goo xam kenn xamul nuñ ko mën a qualifier dafa nekk tamit ne dafa gën na nasaxal Euh, doole assemblée nationale léegi est-ce que lii nii gënul simple mu mu éliminer assemblée nationale kon benn. assemblée nationale euh, man dama proposé ñu tas ko mu amul njariñ <laughs> ndax assemblée bi mooy assemblée bi gën a yées. Mhm. depuis ba indépendance ñëpp ñëpp xam na loolu. Mhm. man fa laa nekk. Mhm. ña fa nekk liggéeyul askan wi seen bopp lañ fa nekkal. yow bu fekkente ne indi nga assemblée nationale bi projet boo xam ne day dindi article 97 mooy xam déclaration politique générale amatul assemblée. nga indi art nga indi loi boo xam ne day dindi article quatre-vingt-dix-huit. Mm-hmm. mooy lan vote de confiance. nga xam ne bu ñu taxawalee gouvernement bi dafa ñu assemblée nationale assemblée jox confiance amatul. Mm-hmm. nga indi article quatre-vingt-dix-neuf boo xam ni mooy tax maanaam mission de sincère am nga xamante ne assemblée am na sañ-sañu daane gouvernement bi. mais sañ-sañu assemblée boobu yëpp yow nga dindi ko ñu ne déet waay nga ñëw indiwaat benn poursuivant boo xam ne dafa assemblée ni ko yow bu ma defatee lii bëgg ko yokk. Mm-hmm. du ma la ñëw tàggu. lu ma neex laay def. mais boobu ensemble boobu lan la ñuy liggéey. dara kon kay tas ko moo gën. ndax ah, ndaxte ñoom ñooñu. li ñuy def malgré que neexu leen mais ñi ma wuñ see wax même terrain yi nii barki dem ba léegi te APR yëpp ñu ngi may woo ni ma dimbali ñu si li lay waral nga waxal ñu si ndax. ñi ma wuñ see wax ñi ma wuñoo wax. ndax koo xamante ne yow jafe nga ni xëy na doo faluwaat wala boo waxee Macky Sall mere la mais xam na ni wax dëgg yàlla aéroport bii la leen waroon a may bu leen yéene woon jàmm mm-hmm. mais fee ñu leen may moom jaru ko jëru ko yabaate la léegi euh, euh, euh, projet subvention yéen honorable ñu def taf taf nii suppression des villes dégg nga coow li waaw dégg naa ko waaw ban jàngat nga ci am jàngat bi ma si am mooy suppression de ville damay bañ ñu jël ko personnalité ko diw mhm. ville yi du benn ville juróom la juróomi ville la ñun ñi di wax ak yow Touba dañoo soxla ñu am statut spécial président de la République moo ko digaloon bu mu nekkee Kaolack te luñ ko war a boole bii après bu ñu ko defaraat te boo jëlee code collectivité locale si article premier bi dafay wax bi muy wax waxul sax ville conseil départemental wax ak commune bu fekkente ni maanaam décret moo taxoon bii li am muy Abdou Diouf jël ko. def décret boobu noonu ngir lan régler problème politique est-ce que déggoon nga ñu wax. ndax boobu socialiste fi nekk ñoo doon xeex kenn ku nekk mu daggal fenn def ko commune. Ablaye Wade ñëw bàyyi ko noonu ndax moom démocrate la. Macky Sall ñëw bëgg jëlaa loolu delloo ko fa mu nekkoon ndax lan xëy na ñi fi nekk néexu leen. te boo rakamee gisi mais kooku bu fekkente ni yoon moo ko may nag bu ko neexee na ko def waaye man aw ma lu ma ma lu en tout cas lenn loo xamante ni dinaa si man du ma waroo Dakar. man dëkkuma foo ma dëkk mooy fee ki xaman moom la ñuy tax ñuy wax est-ce que kooku jar na ñu koy kaasal pour que ñu bañ si est-ce que moo koy gañewaat tey wala ëllëg kon yaakaar naa ne man euh, sama wax si loolu daal mooy li nga xamante ne mooy njariñu askan wi nga xam ne bu ñu ko defee askan gis seen bopp nañu ko def loo xamante ne politique la politique moom bu ñu koy def nan bàyyi ban jàpp élection locale yi ku mën sa moroom gagné. waaw sànq am na am na loo junj xam ne euh, dinaa si ñëwaat ndaxte émission bi daanaka léegi mu jeex euh, ba tey ci ville yi gis nga Sada Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Mansour Faye goro président euh, li ñuy fas yéene ci seen euh, ville mooy jël euh, ay ay ay yoon yu bakkane ay avenue yu bakkane tuddee ko président Macky Sall mu nag coow lu rëy ndaxte kenn mësta gis président en exercice ñooy tuddee ay ay ay ay ay yëf yu mel noonu mu mel ne comme daal culture daal personnalité nga tubaab di xam ni koy waxee ci olof foofu tamit honorable bëggoon naa la fa dégg bala maa jaal ci leneen. waaw li ma ci wax loolu ñaawlu naa ko. Mm-hmm. ndax jàpp naa ni. ku nekk cim réew jógeeguloo fa wareeguloo pare war ñu laa yo defal dara benn benn benn benn benn mandargal wala jaajëfal la mm-hmm. tànk sa liggéey pare bu pare woon ñu def ko kenn du si wax dara mm-hmm. bu ñu ko jëloon di ko tuddi Ablaye Wade kenn du si wax dara mm-hmm. mais ñu koy def tey Sada Ndiaye yaakaar naa ni lu waa Sada Ndiaye dégg ko Assemblée nationale moo dàq lu Macky Sall xëy na moom tax na mu bëgg ko neexal Mansour Faye tamit erreur yi muy def dafa bari ndax li dalum Karim Wade ba tey jànguwu si Mansour Faye Alioune Sall Adama Faye ñoom ñoo tax Macky Sall bëgg def troisième mandat ndax bu ko deful bu fa Macky Sall jógee ñu euh, lu mu ah na ni tey Aliou Sall affaire Aliou Sall gis nga mm. mm. woon il faut que ñu yóbbu leen ci yoon ñoom xam na loolu. Mm. moo tax Macky fi mu ne xelam dalul ndax tey ku gagné ñoom ngay njëkk a woo. kon Mansour na ko daloon. ñu koy jagu si Abdoulaye Wade mais Abdoulaye ku ne xam na ni moo tax ñu dàq ñu ko. ndax président Pape Diop bu nàkkee maire bi Karim Wade mi defoon ci liste ba Khalifa Sall mi doon wax naan bu Pape Diop gagné da ko jox euh, Karim Wade moo da bëgg a jox moo tax ñu euh, na xam ni dafa jege Macky Sall. te bañ ko yàqal. na yem ci liggéeyam mais tudd ay ville ba naan maanaam ku lu géej gi mënta mhm. arrêté nanga nag mhm. yooyu wax yooyu day tax Sénégal yi rawata gën a bañ Macky Sall loolu jëru ko te Mansour jàpp naa nit ku baax la ndax aussi tamit loolu laa xam si moom dëgg la alors euh, euh, euh, juróom minute moo ñu desee Macky Sall ak Idrissa Seck nee nañ ñoom ñaar mburoog soow la àndandoo naan wala ànd boole naan wala boole tuur man nag ba loolu amee dama gis Euh, euh, yaa ngi tudd léegi président Pape Diop muy sa leader euh, ci bokk gis-gis mu mu mel ku gën a genre communiqué xaw mel ku ci xaw a wane waale benn frustration benn xaw petit ñaxtu boo xam ne ma ne ci ginnaaw loolu nag man dama bëggoon ndax ku ne xam na relation yu Idrissa Seck Seck ak président Pape Diop. président Pape Diop waaw. ci élection présidentielle su ma juumulee. waaw non non non bokkoon coalition. waaw ñoo bokkoon coalition. loolu la ma si waaw li ma si expliqué mooy président Pape Diop Idrissa daf ko wor. daf ko war daf ko war. nu mu ko waree. war coalition bi. nan naka la ko waree. ni ko njëkk a waree mooy Idrissa Seck bi ñu dee def coalition. Mhm. président Pape Diop mhm. moom nag mooy. Idriss Seck bu fekkente ni yàlla dogal na nga gañ réew mi da am na si Karim Wade. delloo maanaam kenn ku nekk lam ñàkkoon si droit am. Mhm. bu ko defee réew maa dox beneen bi. président Pape Diop génne teg si kaw taabal ji. ci ci coalition bi. waaw moo gën juróom fukki million bi ñuy campagne. Mhm. ñu teg ko si kaw taabal ñoom moom moom lañ tàmbalee. Mhm. yónni ñu fukki million Touba bi nga xam ne dinañ suba la ñuy def élection yi. Mhm. pour ma am ñu luyee si ay car. ak maanaam fay si bureau de vote man ma génne fanweeri million. génne fukki oto yoo xam maa moom campagne Idriss Seck mu gañu Touba Idriss mës a gañu Touba.

bi muy génn paa bi sama papa woo mu ne ma bu fekkente ni muy dëgg la sama dana gagné réew mi ma xam ni la bu tax nga ñëwoon ko mooy la wax du dëgg bi muy traité ak Macky Sall dem naa seeti Pape Diop ni koy def mook Aliou mook Aliou Ngouille Ndiaye Aliou ko loolu noonu tey jii mooy déception bi ak war gi mu ko war te président Macky Sall mii li nga xamante ni moom la ko Pape Diop defal Idriss Seck mënu ko defal ndax bi mu koy proposé pour mu nekk premier ministre Ablaye Wade bi mu ko doonee Macky Sall jóge ñëw fekk Pape Diop fii ci Almadi ànd ak Farba Ngom ak baylaawan ak mbokki Macky Sall ni ko damaa ñëw ànd ak sama géwal ànd ak sama xarit pour ñëw ak samay mbokk ñëw di la sant gërëm ndax li nga ma jàppalee ma nekk premier ministre kon am na lu fu fuñ jaar moo tax président Pape Diop bi mu nekk dama nangu wala ma koy conseillé muy nekk di wëndeelu wala muy def nan nay teg téye boppam ni Ablaye Wade ma def ko xool ba xam fan la wànnite mu jógee boppam ndox ak euh, soow boobu noonu mooy soow ak soow ak boobu noonu mm. amul suukar ndax suukar si mooy loolu moo tax que maanaam mu am déception Idriss daf ko war. mais mais mais quand nga Idriss daf ko war mais est ce que tamit Pape aussi est ce foogul woon ne euh, xëy na président Macky Sall euh, ndax kenn déggul noonu ñoom ñaar euh, est ce que espéré woon quelque part que xëy na poste bi ñu jox de sec moom moom moo gën a yellool. ma ne Pape Diop bu doon poste laa la wax. bu doon poste bu soxla woon poste. Mm. la jiit jiite. Macky Sall nee na ko. li li Moustapha Niasse yor boo ko soxla woon yow laa koy jox. nga ne Macky Sall leen ko lan. li mu li Moustapha Niasse yor boo ko soxla woon yéen yow yéen famille libre yow laa koy jox. kañ la ko wax yàgg na. <laughs> élection yi jàll. élection 2017 yi waaw. xanaa ko bu doon doon Pape Diop ba tey Sénat mi ngi fii Pape Diop moo tax Sénat. naka. Pape Diop moo tax Sénat. nu mu ko tasee. Sénat bi Macky Sall dafa ñëw ni ko dama bëgg te tas mais bu neexoon Pape Diop ñoo am majorité Sénat ñoo am majorité assemblée bu neexoon Pape Diop Sénat du tas. mais président Pape Diop daal di convoqué ba sama Pape Diop ay sénateur la ñu katase ko fi américain pour lan président Abdoulaye Wade moo ne ko woon bu leen seen Macky Sall dara lu mu bëgg ànd leen seen moom ndax famille libérale nga xam nan tas moom moom la bëgg loolu mooy tas gi loolu mooy li nga xam mooy si am mais mais mais mais quand même euh, li nga wax ni laa bëggoon tuuti nga tojal ma yax bi parce que honorable tey nag moom tey moom yaa ngi yaa ngi yaa ngi kii moom te yaa ngi communiqué mais mais da da nga ne euh, président Pape Diop Macky Sall daf ko ne lii ma jox Moustapha Niass. dañuy lii ma jox Moustapha Niass. jox ko suñu alliés yi bu ko famille libérale soxla bu ko Pape Diop soxla woon yéen laa koy jox mais Pape Diop soxlawu ko. ndax li tax soxlawu ko mooy président Pape Diop gàcc la si moom war askan wi muy jël post boo xamante ne nii yaakaar naa ni askan wi fi ñu ko doon séentoo mooy fi Macky Sall yor nekk njiitu réew mi ñu àgg foofu noonu. te loolu la ñu bëggoon def ci 2019 Macky Sall si boppam xañ ko élection yooyu na ba pare yónnee fa nit ngir du ko neexal ngir mu jàppale ko Pape Diouf ne ko duma la jàppale tey duma la jàppale ëllëg coalition bee laay dem pour gagner Idriss Seck maanaam Pape Diouf moo tax ci li ma wax ma ànd ak population Touba ñu gagner Idriss Seck maanaam Touba loolu moo tax mu jël deuxième moo tax bu ma déggee mën na am na 85 pour cent dañuy nax hmm. doon élection Macky Sall ànd ak Idriss Seck. ma ko Touba. ndax amu fa dara. mais mais mais wax nga sànq nga ni euh, euh, mburoog soow bi euh, ñoom ñaar ñiy bàkku Idrissa ak Macky yow gëmoo ko suukar amu si quoi suukar amu ci suukar sama askan kon yow da nga foog ne yow da nga ànd ak ñu ne Idrissa dafa dafa erreur ba mu àndeek ak xam nga kenn ko nekk am nga soi mais man xam naa ni fii laa waxoon seen plateau bi ni hmm. am na ay deal yoo xam ne mi ngi am diggante Macky Sall ak Idrissa Seck yàgg naa ko wax hmm. amoon naa si lu leer li may wax yow nii am na ñeneen ñu des ñoo xamante ne ñi ngi bokk ci famille libérale bi ñoo xamante ne opposition la ñoo xam dañoo nëbbatu am ñoo xam ñi ngi feneen yoo xam dañuy dem fekki Macky Sall si jamono toll nii yoo xamante ne feeñ si kanam mais man li ma g mooy Sénégal kenn ku nekk dafa am loo war a def mooy ñi war a gouverner nañ gouverner ñu war a opposant opposant mhm. mais Sénégal opposant opposant dafa metti mhm. ndax ñun buñ santoon Mbàkke di dund si addiya ak barket Sëñ Tuubaa ba léegi kenn waxatu ko mhm. ndax dañu bundu xataal jëm nu tëj si kaso bi wala ñu mujj mel ni comme ñeneen ñi nga xam dañu leen a xoj ñu dem waaye ñun sëñ Touba la ñu ragale moo tax que mënu lu ñu dara ndax sëriñ Mountakha moo ñu yebal Assemblée nationale ak askanu Touba te heure bu ñu fa jógee dañuy dem rendre compte sëñ Mountakha ni ko lii leen fa jëlee lii leen fa wax mu am mbégte suñu liggéey loolu moo tax état bi xam na bu baax a baax leen def loolu nag lan sa man mooy Cheikh Abdou comme mënu lu ko def ci lii li mu am ci alal ci bien ci loo na buñ ko nangoo du mujj fenn nañ wax naa ko Serigne Mountakha xalif général wax naa ko porte xalif euh, xalif général muy Serigne Bass Abdou Khadir président Macky Sall na ko jox na ndigal Abdoulaye Daouda Diallo ba fi may wax naa ne ñii wax sama ginnaaw koo xamante ne sa njiitu réew jox na la ndigal pour nga delloo Cheikh Abdou Bara Dolly bu fekkoon sa xar la sax bu la avant mu la koy wax nga def ko mm-hmm. Abdoulaye Daouda musuma jariñ dara soxlaalu ma ko dara séquma ak moom dara li ma naqari kaso bi moo sa dugg pour police fanaan fa ñaari fan moom moom mi moo ma ko yóbbee man ak sama frère sëñ Cheikh Mbacke ak sëñ Assane bi mu nekk ministre l'Intérieur kon ñiy wax nañu ko arrêté te xam ni gaynde laa maa ngi ci àll bi ku ma te àgg fa nga jëm dama lay coob continuer muy ku man di doon nag laa la wax <laughs> loolu leer na Mbacke Balla léegi mais mais mais ci sa parti euh, euh, bokku gis-gis bokku gis-gis quand même dafa mel ne aujourd'hui euh, yaa fa gën a dafa ne parti bi léegi parti bi si boppam dañ ko simplifier réduire ko à zéro yow donc yaa ci fës. parti mi ngi dox. mu ngi doxee. xam nga parti. parti bi xam nga parti bi kenn nit. mënta dox na parti bi ñun kenn déggul euh, réunir nañu. kenn déggul communiqué bu wax amee yow yaay wax président Pape Diop euh, euh, presque moom dafa mel ni ku jël retraite. parce que dafa mel ni migrant et presse non non xam nga Aïssa donc yooyu. la euh, situation mbas bi mu amee ba léegi ñëpp dañoo suspendre seen délégation seen équipe. ma rek xam nga aussi tamit parti bu toll nii bokk gis-gis am juróomi député ensemble national am hmm. téeméeri conseil ak mais député yaa ci gën a fës yow. yaa ci gën a fës mais xam nga yàlla moom xam nga xam nga yeneen hmm. a du si parti bi dong laa gën a fës mboolem ensemble national man maa fi gën a fës kooku yàlla moo koy dogal kooku dafa am loo xamante ni du Seex Abdu mais sëñ bi la sëñ benn sama kaw sëñ Touba tey boo duggee assemblée sëñ Touba nga fay gis sëñ Touba kese mooy moo nekk buntu ensemble national nga xamante ni moom ngay dugg jàkkaarloog sëñ Touba sëñ Touba moom nag moo ne suñu biir ba bu ñu dugg ensemble moom la ñuy dugal mm-hmm. kon jàpp naa ne loolu du ñun kañu yabal la te am la mu ñu waxoon ci ensemble la bu ngeen demee nekkal fa Touba nekkal fi waa Touba nekkal fi askan wi ndax boo nekkali Touba nga nekkal nga Tiwaawoon nekk nga Thiénaba nekk nga Laayeen mhm. yaakaar naa situation boobu yëpp tey moom la ñu boole pour am satisfaction mhm. kon moo ñaaw yi nga xamante ni ak boddu xam ci biiru xeet yi nga xam ne moom la Macky Sall di def muy barki de moom yi nga xamante ni ku ne xam ne ni fecc ak way <laughs> kese la yàq askan wi yàq xale yi dégg nga daju la foo xamante ni maanaam nit dañ fay jóge di mooy yàlla ndax am na ñoo xam bu ñu demee soir bu ñu fa jógee dañuy dem seen i kër di def loo xam ne yàlla hmm. ñu leen jox 2 milliards ci xaalisu réew mi hmm. bàyyi ñan xam ne leen jàng bàyyi imaam yi bàngi bàyyi mbëri làmb yi bàyyi footballeur yi loolu dafa war a jeex ci kenn du ko yore si ku nga jox ko mais artistes yi dañoo doole ndax li seen doole mooy comme Youssou kilifa tey hmm. te ku ne xam na ne lim fi moo tax maanaam mu dem ba mu demee lijjanti loolu waaye nag waroon na mën a sóoraale imaam yi nga xamante ni amuñu kenn ku nekkal ku dul yàlla waroon na sóoraale jànkatu xasaat yi nga xamante ni tamit jàngatun ndax affaire mbas mi mm. waroon na sóoraale mbër lamb yi nga xamante ni tey ji lu baree bari ñoo nekk seen ginnaaw te amuñu fu ñu dem bëree ji waroon na sóoraale tamit footballeur yi ak ñi nga xam ñoo nekk si saal yi yooyu yëpp ñu tëj ko kon Sénégal kenn waru koo yore nii dañ ko war ñëpp pour globalement li nga xam moom maanaam euh, seen plan de relance économique bi nga xam moo gis nga loolu dafa war a sérieux gis nga am réew booy défense économique da ngay tàmbale ci base bi mooy ci suuf ngay tàmbale jëm kaw mais ñii dañuy fan amuñu xam-xam yërëmul askan wi mun ñu liggéey ba pare ay dictateur la loolu ban firnde nga ma ci mën a jox bari na ñàkk yërëm askan wi koy mënul passé yow baykat yi nga xamante ne dañoo bay ba bëgg a dee di jaayu 325 yow nga ne ko doo fa jaayu cinq tegub centre ma si yoon bi ni da may jaay deux cent cinquante fa force fukk ak juróom yi dem fan kooku ñàkk yërmaande moo mm. mënta paase loolu ñàkk maanaam yërëm askan mënta paase tey ji boo jëlee tey ji affaire napp bi géej ñu jël ko jaay bàyyi ñi nga xam ñooy pêcheurs yi kooku ñàkk yërmaande mënta paase loolu ak yeneen ak yeneen waaw mais mais mais mais non bala maa bala maa ñëwaat nag ci jeexale ci politique euh, da loo xam ne ne d'accord ma keex yow nee nga artistes yi euh, xam nga man tam quelque part artiste may gis nii après ah nank parce que yow da ngaa bëgg si xaalis bi non euh, xaalis bi moom fi ñu def naa ku ñu ko jox doo doo ko bañ. mais xam nga fan laa d'accord. dama ne bokk nga si laaw. bokk ah, ah, ah, nga si amaguma boo amee nga séddum. <laughs> ah non yow kay amoon seen mi yor ay terrain yooyu jaay ay oto fi ñoomin seen. man oto laa man dama liggéey mii. Hmm. moo ma daggal parking. may fay par weer indi samay oto jël ay indi teg fa di jaay ndax amatuma lu ma liggéey loolu mooy sama liggéey fi mu <laughs> sëñ <laughs> man man dootuma émission ak yow. aw ma liggéey mais artistes yi ngay wax. xam nga artistes yi euh, xam nga d'accord ma ci ndax nee nga artistes yi ay fo euh, fi nga toog nii kooku moom. xam nga man may wax artistes yi fo. fi nga toog nii ku moom laa la laaj. dama fi nga toog nii ku moom. xam nga xam nga xam nga ki may fay weer. moo moom fii mais jëliwu ko si tëgg ak fa de. loolu ci wóor dëgg tëgg tëgg fa la ko jëlee si jëliwu ko fii dafa liggéey. mais mais mais baatu man man baatu fa diis. non xam nga xam nga mooy lan. Hmm, fa mooy lan. artistes yi nga xamante gis nga leen maanaam ñu ne dañuy bëgg a dem def ay soirée est-ce que gis nga Youssou Ndour bokk ci mais yéen soir mos seen liggéey ay mais at yow bi nga nekkee di jaay dama ay oto dama ni dama ni dafa mais ñii tamit yow dégg xamante ni tey ji ñoom ñoo def mais après ñëpp mais pourquoi defuñu imam yi taman si imam yi laa bokk doomu soxna yi pourquoi maanaam joxuñ bëri lamb yi non ñu am naa fi taalibe pourquoi joxuñu leen da nga war a wax pourquoi joxuñu ñi nga xamante ni jii maanaam ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ñooy footballeur yi ak yeneen ak yeneen deux nangu ngay jox ay fokat bàyyi imaam yi ak ñi ne si yi ak jànkatu xasaay yi mais léegi kon ñi ne xasaay léegi ñoom ñan la mais est affaire bi il faut nga jàng xasaay pour ba bañ a kan il faut nga jàng xaseet dafa am ñoo xamante ne dañuy fay am ñoo xam ne dañuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaare yu mu am yow neexal nga ñuy way ak di fo mm. bàyyi nga ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoo leen dara njëkk na yow noonu loo ko mën a atte non man ni ma ko atte lu simple la waxal ñooñu bàyyi artiste lañ ñan ñay ñay xase it mais boolewuñ si mais boolewul leen si waaw mais loolu nga war a wax da nga war a wax ne waaw xam nga xam nga mais xam nga boo xam nga xam nga ni ma ko waxee dama bëgg nga comprendre ko noonu mooy man li ma gëm nekk doomu soxna. jox ñëpp loolu li ma gëm nekk doomu soxna bala ngaa jox ay wecckat ki kat mm. nga dem jox ay jànkatu xasaay jox ay imaam ñi leen kat comme tëj nañ jàkka yi. Mm. tuddatu leen ay doom. demutu leen ngénte mayutu leen ay sëy ndax yëpp dañ koo tere léegi la kaa mooy am leen lii ngeen jàpp ni xam a def yow maas ñuun gi yow nga war a maas ne président Sall état du doxale état moo du doxale ni mu doxee état cuune la laa la wax ni mu doxale baaxul cim réew mm. ndaxte ñii def nañ ko jox na leen mais bu subaa mbër lamb yi dañuy génn par force ñu ubbi leen seen stade yi wala ñu jox leen xaalis mhm. bu ginnaaw subaa footballeur yi génn bu ginnaaw subaa dinaa organiser maanaam manifestation yoo xam ne dama naan mbooleem jànkatu xasaay bu la joxul na génn manifesté wu mhm. yi ñu day leen ñu manifesté wu grande mosquée ndax ñoom tamit ay Sénégal lañ ci réew mi lañ bokk te mbas mi ñëpp la laal Macky Sall buy joxe suñu xaalis suñu réew moo xam ñoo ko jox wate ko bitse na si boole ñëpp waaye bu mu xaaj jox waay d'accord bàyyi ñee ah. voilà mais baat fakat bàyyi ko ndax yow woo na ma di nga làqu sa déglu Youssou muy way sa man ah, ndax maanaam day wowal xol loolu sëñ Sambay wax man jàngkatu xasay man xasay laay déglu sëñ Sambay nee na musique day wowal xol kon mos a déglu Youssou jamais ah bon xanaa bu télé ba laa koy seetaan nii te télé bi sax léegi la bu kii ma sàppi ko dem seet daanaka li ba ëpp lu may seetaan. bu dul seen télé bi maa ngi seetaan li nga xam ne mooy euh, Touba TV. mais yow Nara bi sa nga toog fii nga ne Youssou Ndour nga dégg ko yow. fu ma koy déglu man du ma ko déglu. du ma ko déglu man xasaay rek laay déglu ndax suñu sàmbay moo ne maanaam musique dafa woolu xol te xol ba yow ñaanum ko yàlla aussi muy sama xarit la naka. mais ko lu mu nekk sa xarit bu fekkee ne lu muy wax ah, dama xam xam nga tax xam nga ni kii man nga xartoo man xam nga ni yaa ngi wax yu garaaw ni man man sa presque man sama dàq xaj na sax ah, presque presque man dàq nañ ma mais bu dàqee ma jël la yow loolu yow lu mu la mën a fay man mën naa la fay ñaaram fii ba 10 ans barke sëñ Tuubaa foo ma jël si si si bu la neexee mën naa laa jël nga nekk sama saf di communication ma lay fay 1 million par sa feeg 10 ans ñaata la. ma li am fii bakk na la waaw léegi boo même boo amee lu bakk ni fii amoo ci amoo fi jàmm daanaka yaa ngi nekk say émission te man souvent da nga toog sa kër rek yor say business. waaw ah, dootuma la invité loolu. ndax yow boo ko demee xam dictateur bi. voilà dootuma loolu <laughs> xam nga loolu boo ko defee xaw dictateur yaakaar naa émission yooyu na ma nii di kër gi sama kër la. te bu ngeen nee du ngeen ma tamit li ma fi mën a amee ak li ngeen di mën a dégg sama mën na ko dégg si keneen tamal la <laughs> ma naqar li nga ne doo déglu Youssou Ndour loolu loolu dafa métti loolu moom wax dëgg kon yow waykat doo si déglu man daal xasaayit sama oto daal xasaayit laay teg bu nemee sama kër déglu xasaayit samay rajo sax ay lamp xasaayit sax ma si waaw xaaral ma génn foofu parce que man euh, fi nii mbas bi dafa metti te bu ñu may dàq la dàqee rek man daal mën naa laa euh, xaw a mag un million de waaw d'accord mais boo ko magee te xam nga yow un million yoo xam ngay sonn ak yoo xam ne sonnoo bokkuñu communication nga doon toog sa kër yor sa <laughs> na day xale yi nee nañ <laughs> ngi <laughs> ba <laughs> léegi honorable non honorable yow dafa ëpp léegi ñu ñëw si kon ni ñu xam nga troisième mandat Macky Sall bi mooy askan ñoo ko suddu bàyyi ndax constitution moo ko tere mhm. aw askan nag bu fekkente ni maanaam ñoom ñoo soxla seen yëf pour ñu nangu ko day yomb mhm. waaye jàpp naa ni bu ñu ko bàyyee ak li mu yoote nii combat bu mu manee askan wi toog ñu gañe ndax xam nga dafa am loo xam ne dañ ko am muy benn système boo xamante ni dañ siy potoluwaale mm-hmm. mooy mbas mi fexe na léegi ba assemblée nationale débat assemblée mm-hmm. média bi duñ ko yëg mm-hmm. askan wi duñ ko xam la fay génn kenn du xam lu mu doon dëgg la benn télévision lañ fa indi muy RTS boo xam ka ko jiite retraité na depuis 2017 muy Racine ñu bàyyi ko fa lu ko neex lay génne bañ nañ ko ba ñun ñi nga xam ñooy waxal askan sax nangu ñoo génn dañuy sàppi mhm. fi bu ñu génnee télé ñu dañuy ñëw seen télé yi nga xam askan ngeen nekkal mhm. te Macky Sall ba yàgg la ko doon dàq ndax dafa retraité ba pare maanaam moom RTS ba fa soxna Dieng Mbacke di jóge ak ñeneen mhm. ci nga gëj a gis ñu def sax ay journal yoo xam ne ñu doon leen kon ñooñu il faut que ñu xool bu baax a baax situation bi lan la ñuy def mooy yenn loi yi bu jàllee assemblée dafay reporté ko ci population bi mooy loi habitation bi nii bu ñu ko watee mhm. ëllëg ku bëgg a génn ñu appliquer état d'urgence te du mhm. tàggu assemblée loolu baaxul mhm. beneen bi mooy li nga doon wax ci Idriss Seck xam nga xanaa xamoon ne Idriss Seck falam gi moo tax ñu fal Talla Sylla la ci mm, naka Idriss Seck bu nekkutoon maanaam président conseil économique social bi kon Tall Sylla du nekk maanaam mukk maanaam conseil spécial président Macky Sall kon tamit Abdou Mbow mii nekk vice président assemblée premier vice président mm. kon du ko doon mais li ko doon mooy Macky Sall xam na ne ñoom Thiès la dëkk mm. kii moo ko doon jàppale wàcce woon na ko ngir mere ko ndax musta gañe foofu noonu musta dugg liste départemental mm-hmm. musta gañe maire yi mm-hmm. amul bas mu wàcce ko jox ko benn commission boo xamante ni du daje mm-hmm. Idriss Seck maanaam xam ni daf koy fal mu indi Yankhoba Diattara te ñoom ñaar ay xale Talla Sylla moo fa nekkoon depuis Macky Sall mu ànd ak Macky Sall ba tey. Mm-hmm. est-ce que Macky Macky nommé na ko lan moo taxoon ba bële ko. kon xam na ni bu nommé Idriss Seck te day perte mairie bi ndax Idriss Seck day jëlaat mairie bi. Mm-hmm. kon Talla lan lay dese du dese dara. Mm-hmm. loolu moo tax mu jël Talla nommé ko ngir lim nommé Iddi. préparé jël Abdou ko ngir que lu mu nommé Yankhoba Diattara. ñoom war nañu sant Idriss Seck de bu dontoo ñoom kii du nekk vice président kii du nekk conseil spécial. Hmm, mais wax ni nga wax ni kii na de. non dëgg la li ma wax dëgg la. mais euh, honorable defe naa bii mooy avant dernière question euh, assemblée nationale moom dama bëgg a xam euh, Moustapha Niasse lañu war a ñëpp àndandoo ko moom jàppale ko delloo ko këram tegal ko tegal ko pliant nag sa sa yaad ak yu ñu ni mel wala assemblée bi ci boppam comme ni nga ko waxee ni nga ko yàggee saako dañu war a tas benn yoon. xam nga assemblée moom wax dëgg yàlla Moustapha ànduma moom waaye jàmbaar ndax gis nañ doxalinam boo xam ne bu fa nekkee président na muy doxalee wuute na ak ñeneen ñi buñ président ndax ñeneen ñi xamuñu sax euh, xamuñu sax règlement intérieur assemblée xamuñu ko. Mm-hmm. kon dañ koy ñaanal moom mu yàgg fi. ndax mag la te suñu wëlre baay la nit ne bu nekkee sa wëlre baay parce que sa baay la. Mm-hmm. mais doxalinu assemblée baaxul. Mm-hmm. kenn xamul si dara am na ay commission yoo xam ni ban leen fale 2017 ba fi may wax ak yow. commission yi mosuñoo daje. mais mais mais yan commission. muy commission bi ñu dénk Abdoulaye Seck Sadaga. waaw ak commission bi ñu dénk maanaam Mame Diop bi nangoo ci mbëri ci kii si kii waa ji euh, euh, député bi dëkk maanaam euh, côté Kolda. Mm-hmm. am na bu nangu ci moom. mooy Yaya Yaya Diallo déedéet kii la nu mu tuuti non du Yaya Diallo man kii la. nga député yi man. dafa bari seen tur yi dafa bari ba nga xam ne xaw ma leen. mais loolu. moo tax que ñaari commission yooyu mooy commission contrôle. ak commission comptabilité. commission comptabilité euh, du daje. dégg nga te yooyu dañoo war di tàmm càmbar. Mhm. xaalis bi nga xamante ne mooy. xaalisu réew mi. loolu bokk na ci tey ñàkk liggéeyu assemblée dañoo war dem di contrôler état bi bu ñu ko joxee bit sa ba pare fenn fu nekk am na commission bu yore ministère yooyu patron ba nekk ñu dem ñu ko mais yow li ñu la wootee loon ci bit si fan la sa taux de exécution toll. ak la nga waxoon da nga ko def Touba ak mhm, Mbacke ak feneen mhm. ndax tàmbali nga ko mhm. fan nga ci toll bu ko defee ëllëg ñu mën a xam nga xam ne balaa ñoom ñëwati léegi ensemble ñu def ay commission wala ñu dem plénière ñoom si njim bopp ñu mën a wax li nga xam mooy jafe-jafe askan ñu tenir ko à compte avant ñu dem pour yóbbaale ko mais quand même mës naa dégg ñu ne am euh, Moustapha Niass am na ñoo xam ne ñu ngi koy waaj a cour de cassation. waaw am na am na am na ay député APR yoo xamante ni dañoo bokk ci bureau yi assemblée. Mm-hmm. ñëw nañ ci man dem ci Mamadou Lamine Diallo ngir que maanaam ñu dugal ci ressources yi ngi jàppale leen ñoom pour ñu ni Max Moustapha Niasse mag la mais dañoo lànk. duñ ko def tey duñ ko defale bu ñu bëggee combat nañ combat seen bopp ndax Moustapha Niasse moo leen gën foofu doole. Mm-hmm. muy waa APR ña fa nekk. loolu leen les dernières questions honorable mooy euh, ñu euh, ko ci Khalifa Sall sànq moom nga doon dundu euh, ba nga waxee ay waxu supp ba ñu ñëwee ci suppression des villes. Euh, ndax ñu bëri jàpp nañ ne li tax président Macky Sall bëgg supprimer ville yooya mooy maire Dakar bi nga xam ne euh, daanaka mënu ko gañe te amul mbër bi mu fa teg moo tamit naa mas noonu gi rek tasaale yëpp benn yoon Khalifa Sall jamono jii gis nga ne ma ngay euh, dajaloo mi ngi mi mi ngi war di rencontrer ñi nekk ñi des ci opposition bi mais ma li ma jaaxal mooy dama ko gisul ba léegi ma dem dajaloo Pape Diop est-ce que dafa foog ne Pape Diop. Euh, nekkul ci opposition bi Macky Sall la gën a jege ak ak ak tamit yow noo noo gisee démarche am moom Khalifa. xam nga xalifa Sall dafa amul ngor. ah waaw. ndax lan. ñàkk ngor mun paase yow nu tëj la si kaso bi. waaw. man mii di wax yow nekk vice président commission de loi Serigne Cheikh Mbacke nekk président groupe bi. waaw Khalifa Sall amul député assemblée nationale. waaw. bi ñu indi maanaam pour dindi ma laalum kiraan kan moo ko doon jàppale ñun ñoo ko doon jàppale. di ko xeexal. ñoo ko doon défendre. waaw bi mu génnee si kaso bi ndax tax ni mu woo ñu téléphone wala mu seet suñu amul. Hmm. Abdoulaye Wade mi suñu kilifa nangu ko seet nangu seeti président Pape Diop ba pare Khalifa moo tax sénégalais yi coono bi ñuy dund moom moo tax koy dund. coono ban jafe-jafe yooyu am nii. ak affaire dictateur yi. Hmm. ndax Khalifa Sall bu fekkoon tëstoon coalition 2017 bi. nga xamante ni tey jii maam ñun ñëpp ñoo si anam coalition wattu Sénégal bi yaa ngi ko doon dégg. coalition boobu noonu dañoo daje woon ñun ñëpp ba nga xam ne ñu ngi war a dem pour moo tas coalition bi. ndax bañ Abdoulaye Wade jiitu ko tey bu ñu gañe woon coalition boobu ñekk gañe gañe assemblée Karim Wade day ñibbisi kon xalifa kenn du ko te ci kaso bi mais lànk la def kooku nag nan la la mën a maanaam wore toroxal la 2017 bëgg programme à 2021 wala 2022 wala 2024 ngay ànd ak moom. Mhm. même bu Pape Diop doon nekk ci coalition Khalifa Sall man du ma dem. yow Khalifa Sall lu ma neexu la. naqaru ma mais day foofu day wor te amul kóllëre. loolu moo ma naqari si xalif day wor te amul colté mais ñi muy rencontré ñi muy rencontré ñëpp hmm. kenn ku si mën a gaje fa nga dëkk ku dul sonk amul te sonk du ànd du ànd xalif ndax la ba njëriñ lu koy amal ba njëriñ la koy amal sonk mën naa gañe si Ziguinchor yeneen ville bu si coalition PDS ak ñeneen ñi mën na faa am dara ak ñun mais kooku dana ko jaawale dof jënd ko euh, xalif mi nga xamante mi ànd ak Idriss Seck sax jëlu euh, mënut am mënut am ab député ensemble national kooku du am kon jàpp naa ne Sonko koy conseil du ko ñeneen ñi nag ay nit lu yoo xamante nit te la mais amuñu baas baas ki koy am mooy ku mel ni man di gañe fa mu dëkk mais euh, gañe fa mu dëkk foofu la ñuy jeexale émission bi euh, waxoon nga suñ dernière émission que nii euh, samp nga sa ndënd ci mairie Touba ak conseil départemental ba tey maa ngi koy dëggal mairie bu Touba bi candidat laa si doon waxtaan naa si xalif général de Mouride nee na ban àgg ci mhm. ndax ka fa nekk liggéeyul Touba liggéeyul askan boppam la fa nekkal ndax mu ñu la jox 40 milliards bitse depuis ban la falee ba tey mënoo wan benn résultat yu dul ay résultat pakaseen loo fa pakaseen def daal ngay wane résultat mais yow loo fa def mënut am ba sëriñ bi jël Touba ci kanam dénk ko benn liggéey boo xam ne maire bee ko waroon liggéey kon kooku yaakaar naa ne dañ ko faa war a jëlee nu mu gën a gaawe mm-hmm. beneen bi candidat la conseil département Mbacké incha allah moo xam ma ànd ak grand coalition moo xam ma demal sama bopp ndax léegi élection yi ñëw nii par personne la ñuy tànn mooy ki bëgg a nekk ci kaw kooku la ñuy jël tànn ko te Touba bu ma leen présenté woo waa APR présenté ka ñuy présenté. yaakaar naa ne waa Touba daan ñu mu woteel bàyyi kooku ndax kooku amul njëriñ askan wi. <laughs> Cheikh Ba Baara Mbacke euh, Cheikh Mbacke Baara Dolli Cheikh Abdou. Baara Doli nekk vice président commission loi nekk coordonnateur bokk gis-gis. waaw jeex na xam sa bopp neex. ah waaw moo xam nga ko man moom dama dama damay maanaam nu mu tuddati maanaam anniversaire. waaw chef liste la baykat la. Ah. homme d'affaires la. Ah. député la. Ah. coordonnateur bokk gis-gis la politicien la lépp laa daal. bëskat nga tamit. waaw mais xam nga loolu yàlla moo ko def xam nga xorom la boo xamante ni maanaam bu ma nekkul si cin cin bu dul saf xorom. <laughs> man maa yore Sénégal man maa neexal ensemble. yaa ngi assemblée yaay borom koppati bu rafet ba. waaw sa émission jeex na. ñu ñu bàyyi la Mbacke. waaw loolu yàlla ko borom ree ji neex ji. waaw. sa <laughs> émission jeex na Mbacke Balla ñu bàyyi la nga tàggatoo. en tout cas maa ngi lay maa ngi ngi lay sant bu baax na wax dëgg yàlla mm. sama jigéen nga. sama xarit nga aussi. émission bi mooy deuxième fois. Mm. te xam naa ni comme ni ñu ko waxee woon rek. xam ne incha allah dañu gën di ñëw si kër ndax kër suñu la ndax jigéen nga boo xamante bu man góor nga mhm. nitu dëgg nga aussi loolu laa gëm si yow mhm. nitu principe nga aussi tamit moom ngay combattre mhm. la jàmm di ñaanal aussi tamit borom kër gi mu yuus ko féliciter encore si taxawaayam ndax jàpp naa ni situation bi ni mu toll mu jël ay nit yoo xamante ni daanaka mën na junni nit ñooy topp seen ginnaaw di leen fay par weer kooku ak réew ni mettee te dimbali wuñ ko kooku tamit dañoo war a jàppale na ñoom yor ay organe ndax jàpp la presse moom nañu jox di ko wotee si bis bi tey waroon nañu xool ñi nga xamante tey mooy euh, ñen ñii pour ñu jàppal leen mm-hmm. te ku ne xam na ni fi mu toll nii wote nan benn projet loi boo xamante ni statut des la tudd mm-hmm. artistes yi maanaam jox leen benn statut mm-hmm. léegi nag il faut que ñu xool artistes yooyu ñan la ñuy doon ndax wote nañ ko Assemblée nationale barki démb léegi nag yooyu yëpp après bu amee daal ñun man lu du sant gërëm ñaanal aussi tamit xalif général muy sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér di sama baay di sama xarit di sama sëriñ di ñaanal pat pour sëriñ waaju sëñ Baara Doli ak sama waaju soxna bu sa ngom di ñaanal waa Sénégal yëpp jàmm Sénégal si kanam Sénégal pour tous Sénégal pour tous je vous remercie merci beaucoup Cheikh Abdou Mbacké Baara Doli sama xarit nga nag euh, ma am ci fierté bu baax wax ko ndax euh, ni nga waxee dëgg la euh, yëf moom leader moom da nga koy wane fu ne te assemblée bay assemblée nationale bi bu nit ñi di seetaan yaa tax mhm. ndax loolu da di lu am solo loo xam ne bu weesoo sa barke maam Eh, loo jëmbatal sa bopp la ndax bu doon da ñëw foofu rek eh, di def def yëfu sëriñ eh, ak ndongo nekk ci ginnaaw nit ñi maa tax daal maa tax ren waaw ba fuut am tëli waaw ndax tëli jataal waaw jataar bàyyi alwa macha allah maa tax mu am te mois de janvier dañ ko tàmbali macha allah kon universel la rek waaw universel la waaye Fuuta maay Sénégal <laughs> <laughs> yaa Sénégal Sénégal ca kanam muy noonu donc Mbacké Balla ñu lay gën a sant bu baax a baax émission bi nag moom nee naa yow actionnaire nga ci euh, euh, ndax su ma la bëggoon dàq sax yenn actionnaire ñoo bañ na déedéet duñu mënta nekk oh. te am Mbacké nag euh, ëpp naa sax wax ay wax yow xorom nga ci cin li waaye xorom nga tamit ci biir émission bi kon ñu am mbégte bu baax a baax di la dalal saa la soobee rek nga ñëw ci émission bi di la gërëm bu baax nag ci waxtaan qualité waxtaan wi ak ni nga amee sincérité ci wax exactement li nga xam ne euh, mooy sa yëg-yëg ndax Sénégal yi defe naa bu ñu la fonkee looloo tax ndax dañ togg dañ toll réew moo xam ci jamono joo xam ne Sénégal yi dañu bëgg ku leen di wax dëgg mhm. yow na nga ñemee wax leen dëgg euh, moo tax ñu teg la place bi ñu la teg di la ñaanal euh, yàlla 2020 bi ni nga ko dëbbee ba mu mokk 2021 mhm. bi moom mokk ru mbax ma nga xam ne tamit bu gën a sew sax mhm. du ko mën a tabe loolu lañ lay ñaanal di ñaanal nag bu baax a baax mbokk yi atum jàmm corona bi 2020 mu métti woon na lool lool lool mhm. lool lool lool 2020 diis na métti na mhm. euh, donc di ñaan yàlla rek euh, métti képp koo xam ne dund nga métti bu métti ci 2020 bi moo xam euh, ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu koppar ci wàllu koom ak métti bi daal fu mu mën na yem rek yàlla na ko euh, euh, yàlla yamala ci 2020 2021 nag lépp doon mbégteeg teranga ak bànneex feex ak euh, ni nga xale yi di waxee rek happiness yàlla mun na ko yàlla nañu ko defaral di leen gërëm di leen sant ci teew bi ngeen ànd bi ngeen ànd ak suñuy ay programme di gërëm bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñu laa bokkal li may def muy équipe bi jiital si nag mat leen jaw nday male borom glam style bàyyi ma doo ci make up bi sama rakk jooju nga ñu xuloo ëpp lu ñuy ànd waaye xol yee bëggante nañu moo tax du bàyyante moom Euh, su ma ko bëggee bàyyi sax euh, mu def ay grimace ba nga xam ne duma duma ko mënal dara ba koy jaanal yàlla moom itamit 2021 bi mat leen euh, mu dégg ci nag madame mais nag madame bu am ñam monsieur bu am ñam laa ko laa ko yéene di gërëm naka noonu si Cissé ci production bi Mass maa ngi ni jàkkaarloo ak yow Abdoulaye sama doom jooju moo nekk ci régie bi fàttama benn yoon Moussa Sène ak daal képp koo xam ne rek yàgg nga jàpp ci bi émission di gërëm na noonu damay daw ba Italie nag gërëm Euh, sama chéri bu fa nekk euh, di Baye Seydi ak njabootam ñoom luy sama papa Mass Thioub euh, ak soxnaam Ndeela Thiam ak daal sama goro yeek sama njëkk yi ñëpp ñëpp lépp daal laa jël teg ci loxo Adja mu sëñ Bas foofu sa Yoff laay yeen jàmmalaay mu gërëmal ma ñëpp di gërëm nag bu baax sama rakk ji nga xam ne gën ñaax gis lool Amina Poté mi ngi nii moom itam moom laay jébbal kàddu gi di sama rakk nag boo xam ne sama biir xol la sax di ko ñaanal moom itamit 2021 bi lépp loo xam ne mëbëtam la yàlla suñu borom bi euh, dafa la ko ko fay ko nag si euh, njabootam ak euh, moom ci su boppam Amina nee naa ko yaay yaa téye TFM mooy rawaanu Futurs Médias groupe Futurs Médias Amina Poté mooy rawaan bi donc ma koy ñaanal moom jàmmam yàlla na jàmmam yàgg sa war ak ji di gërëm ñëpp di sant ñëpp et puis di leen jox rendez-vous ben à l'année prochaine incha allah jërëjëf merci.